sana tooñ nañ suñu bopp wa in lam taxfir lana boo ñu jéggalul wa tarxam naa nga yërëm la nakuna na danañ nekk minal xaasiriin cay way perte yàlla yàlla yàlla daal di jégal bañ ko waxee yàlla yàlla jégal leen iblis nag yàlla da koo tëkk parce que mooy ga dafa aju woon ci rëy mu ne fatalaqa mu mu jël mu jàng aadamu aadam min rabbi yi jóge ci borom kalimaatin ay baat fa taaba alayhi xam nga taaba ilayhi taaba ilayhi mooy tuub na taaba alayhi mooy baal na ko taaba ilayhi mooy tuub na taaba alayhi mooy baal na ko ibnu Kasir nag day jàng fa talaqa aadama min rabbihi kalimatun mu tax chaat bi nii wa aadama farfa naasiban kalimatuhu bi kasrin walil makkiyi aksun taxawala maanaam rafaal aadama wax aadamu kalimaatin nga nasab ko bil kasr walil makki yi makki yi mooy abdullah ibnu kathir mi dëkk màkka moom aks bi lay def maanaam fa aadama moom da ko fay nasabe fa nasabe kalimaatin moom da fay moom dañ naan fatalaqa aadama min rabbihi kalimaatun fa taaba alayhi ñi ci des ñépp naan fa talaqa aadamu min rabbihi kalimaatin wa aadama farfa naasiban kalimaatihi bi kasrin walil makkiyi nag aksun taxawala innahu moom yàlla huwa tawaabu huwa tawaabu siixatu mubaalaxa la wala mooy li taksir moom mooy jéggalaa kon bi arrahim di borom yërmande gi nga xam day sax dàkk rahman waxoon nañ leen yërmande la goo xam ne am na fu mu yem donte moo gën a daj waaye am na fu mu yem rahim nag yërmande la goo xam ne si dajul waaye amul fu mu yem yàlla ni xul naa ma nit ñi ni leen ihbitu minha ihbitu wàcc leen minha jóge ci aljana jamian yéen ñëpp wàcc leen aywa iblis aywa adam hawa aywa fa imma yaati nag imma maa bi zaid la fa in yaati fa in yaatiikum la woon fa in yaatiikum wala fa in yaatikum fa in yaatikum bu leen dikkalee min ñi mu jógee ci man hudan ab yonent fa man tabia ku topp hudaaya sama yonent ba ya sama yonent ba falaa xawfun déet tiitaange alayhim di dal ñooña ñoo la ñoo ñi nga xam ñoo topp yonent yi wala hum déet ñoom ba tey yaxsanu la ñuy tiit du tiit du ñu jàq léegi nag maa ñu daal di indi maa yokk ko ci wax fa in ma biñ fa in ma nuun bu sukkoon bu ci maategoo dañ ko ci idxaam wax fa imma fa imma yatiyan nakum indi nuunu tawkiit nuunu tawkiit day ñëw gannaaw imma wax fa imma yatiyan nakum bu leen dikkalee min nii hudan fa man tabia hudaaya falaa xawfun alayhim ñooñu maanaam eh, ragal du tiit Ah, wala hum yaxasan déet ñoom it ñiy jàq xam nga xaw fu ci li tiitaange ci luy ñëw la wala lu teew nii xosnu nag ca la paase la xosnu mooy tiitaange loo xam ne dafa paase ba ba fi nga nekk nii xaw fu nag mooy fi nga nekk nii ba ca kanam yàlla xam ni walladina kafaru ñi nga xam dañoo weddi bu leen fàtte la ma leen waxoon ci allazina laamu allazina ñaari laam la woon ñu dindi benn ba bu ngeen gisee allazina goo xam nañ ko shadda maska masko xamal ni la laamu alba lañ dindi laamu taarif moom lañ xasaf bu ngeen gisee allazina laam kenn laalu ko kenn maasu ci dara ki amul maska xam leen ni laamul kalima ba laamu allazina lañ dindi parce que lazina ndax am nañuy jàng siraata lazina siraata lazina nga xam du am al walladina kafaru ñi nga xam ne si dañoo weddi wa kaddabu bi ayatina ñi weddi sunuy kéemaan yi suñuy aaya yi ulaayika ñooñu asxaabu neeri ñooñ ñooy waa sawar maanaam ñooñu duñ génn ba mukk ñoom ñooy waa sawar hum ñoom du xaaliduna way sax lañ dàkk fii ci biir sawar duñ fa génn ba mukk amul amul génn waxoon naa leen tamit ni ulaayika am na waaw bu nekk ci dend ak ugi diggante ugi ak laagi am na waaw gu fa nekk goo xam bu ca seen yoon nekk def def leen ci ab ab ab wërngal ci kaw bàyyi ko fa ni ulaayika lu tax ñu bind ko bi seen yoon nekkul waxoon naa leen bu ngeen fekkee benn programme ci ordinateur programme boo xam si yow bu sa yoon nekk lu setup ba setup ba daal yow boo dikkee installé setup ba yeneen fayil yi ci nekk yeneen fichier sa yoon yoon boo nee amul njëriñ ba dindi ko boo setupee boo setupee doo gis dara kon ulaayika tamit boo ko dindee dañ naan li nga bind du alquran yaa bani israil yaa bani israil israil wax nañ ni moom mooy yàqub moom mooy yàqub isra isra mooy abdu il mooy allah israil moom mooy mooy mooy yàqub moom moo doon israil kon danañ ko tuddee yàqub di ko tuddee malaaka yi ñoom ñoo ko tuddee woon israil yaa bani israil yéen waa banu israil udkuru bala ngeen maam comme mooy ngeen may mooy uskuru ni'mati allati an'amtu fàttaliku leen ni'mati sama xéewal allati an'amtu aleykum fàttaliku leen xéewal yi nga xam ne an'amtu aleykum xéewale woon naa leen ko wa awfu bi ahdi matal leen kóllëre gi ngeen waxante woon man uufi bu boobaa man matal bi ahdikum ci seen kóllëre ma ahdi bi nga xam ne lii nag banu Israël rek moomu ko ñoom lay waxanteel waaye ñun ñëpp ko bokk aw fu matal leen bi di la ngeen kóllërante woon ak man ni da ca ma ca ba ma leen ni alastu bi mu ngeen ni balaa yaay sunu boroom loolu matal leen ko bu ngeen ko defee rek uufi ma matal bi ahdikum ci seen kóllëre te wa iyaay man dong dong dong farhabu ni ragal leen ma farhabu ni ragal leen ma wa maanaam ma man dong bu ngeen ragal keneen ku du man moo tax moo tax yàlla fii daanaa ko wax ci jamonoy campagne man yàlla fii tegaluñ ko ci bopp diine ji ka ko gënal du leen tegal ci du ñu tegal fi du ñu tegal ci bopp réew mi ka ñu gënal dañ koy tegal ci bopp diine ji ka ñu gënal ka ka ko gënal mu tegal ñu ci bopp réew mi ka ñu gënal mbooleem mbooleem ilimaan yu jàkka yi nga fekk ilimaanu jumaa joo xam ne si barki dem julee naa ci Dakar gi benn jumaa joo xam ne si ilimaan ja ci lu wér ferul ijji maanaam xutba bi ci français la koy bind maanaam ci wolof la koy wax ci bu demee bay war a wax aaya alxuraan sax danaan boo demee ci suuratu baqara verset sàngam boo demee ci maayida verset sàngam nga nga xam ni te moom mooy ilimaanu jumaa ji mooy xutba bi nga xam ni jàngul dara parce que mooy ilimaan ji biñ ne biñ ñi fee biñ ne Ablaye Wade daf fii bëgg a teg doomam àddina bépp ñi Sénégal gépp a jóg ni waru fee teg doom mais d'accord nañ sëriñ bi dem teg fi doom da jàpp d'accorduñ tey ci sàll mi fi nekk bu ñu woon tey jii daf fi bàyyi doomam ñëpp dañu jóg taxaw ñu affaire ko affaire bi dungu bu dee wàllu sëriñ bi nag d'accord nañ na dem bàyyi fi doom moo xam doomam mën na mëne na na mëne woon wala mënewu ko kon yàlla tegaluñ ko ci bopp diine ji fa ko gënal maanaam tey buñ nee buñ ne weeri feeñ na buñ ne weeri feeñ dañ naan na ko diw wax ba pare est-ce que diw moo ni weeri feeñ na donte am na ñoo xam ne gis nañ ko teg ci seen bët kon tegaluñ yàlla ci bopp diini ji fa mu te wax na ni la ta'murunna bil ma'ruf yéen sallallahu alayhi wasallam moo ko la ta'murunna bil ma'ruf wala tanhawunna anil munkari aw la yusallitanna allahu alaykum man yarhamu man laa yarhamukum fokk da ngeen yéen boroom xam da ngeen nekk di digal lu baax di tere lu bon bu ngeen ko deful fu ngeen toll yàlla damay xiirtal ci yéen man yàlla damay xiirtal ci yéen président boo xam ne du leen yërëm te du ngeen ko fi mën a jëlee wala bu ngeen ko fi jëlee ka ngeen di indiwaat da koy rek te ci mbugal mu nga xam si moom moom leen doon bëgg kon li gën a wóor ci campagne ci jële fi président la république li gën a wóor mooy ñëpp ñu àndandoo jaamu yàlla parce que loolu la yàlla wax innani ana allahu maliku muluk waxoon nañ ko yàlla nee na bu ngeen defee li ma bëgg seen président def li ngeen bëgg bu ngeen deful li ma bëgg seen président def li ngeen kon awfu bi ahdi matal leen sama kóllëre ak yéen uufi man ma matal bi ahdi comme ci li ma te yéen mooy bu ngeen ma jaamoo ma xéewal ma ma sant sant leen bu ngeen ma santee ma dool leen ci xewal te na ngeen ma ragal man képp bu leen ragal kenn dañuy wax ni boo ragalee boo ñemee yàlla da ngay ragal lépp waaye boo ragalee yàlla lépp lay ragal wa aminu bi ma anzaltu yéen waa banu israil gëm leen bi ma anzaltu ci alquran ji nga xam ne wàcce naa ko mu musaddiqan muy dëggal lima maakum ci tawret bi ngeen yore wala takunu bu leen nekk walla kaafirin bii ñi koy jëkk a weddi bu mu nekk yéen buleen ko jëkk a te wala tashtaru bu leen jënde bi aayaat yi ci sama kéemaan aaya yi ma indi buleen ko jëndee sama nan ak njëg xali leen gu néew kon wa iyaay man dong fa taqu wu ni na ngeen ma ragal maanaam bu leen bu leen jëkk bu leen weddi alquran mukk parce que yéen yéen a ko gën a xam ñëpp parce que ñëw na ci seen téereen ni am na yonente buy ñëw dana indaale ab téere bu leen ko jëndee maanaam aay bi nag xaw xëy léegi gaa xëy nañ ci mais bu njëkk dañ naan ndax boo boo wàccee alquran kaamil ba pare waruñu laa jox tuuti parce que bu bu leen téere yàlla bu leen ko jëndee njëggu néew maanaam bu ngeen wàccee kaam nañ leen jox lu bare bari déedéet maanaam aay yi ma indi bu leen ko jëndee njëggu néew maanaam li ma wax ci alquran bu leen ko fi bàyyi di wax leneen parce que leneen la ngeen di wax moom ngeen di jël jënde dëggu yàlla gi te bu boobaa da di sànk bu leen fi bàyyi alquran di àttewoo leneen moo tax ñii àtte ci duñ àtte ci alquran donte réew mi moo moo moo laaj loolu nañ xool seen diggante ak seen bopp àtte boo àtte fii ëllëg yow nga xam nañ ko àttewaat àtte boo àtte fii rek parce que yàlla dafa ni àttewoo ci alquran wala nga bàyyi. boo nee man nag procureur la président tribunal la magistrat la sama liggéey moom mooy ma liggéey aywa ëllëg yow ma xam atte boobu da ko attewaat te boo ko attewee ci côté Sénégal wala réew ma nga nekk yàlla dañ la mën at ku la attiroo ci loolu kan moo la attiroo ci loolu kon ki bu fekkee ne da nga bàyyi alxuraan atte leneen def nga charayta bi ayati sama nan xalilan boo fa bàyyee diine yàlla dem ci beneen diine charayta bi ayati laay sama nan ci yàlla nee na bu leen bu ngeen di ragal ragal leen ma man képp bu leen ragal keneen yaakaar naa li des ci waxtu wi barewul kon ñi sant bokk yëpp di leen eh, di leen gërëm di kontaan ci teewlu gi ngeen ñi teewlu fii ci TFM ñaan yàlla mooy ñu digg ak topp nangul ñu jaamu yàlla gu ñuy gu ñu nangu cay ñuy jéggulu bu fekkee ne am na ay njuumte yu ci am bépp njuumte boo xam ni mën nañ ma ko dabaatal ni ma la nga waxoon la nga nettali woon nangam la nii gën a jub wala aay bi na nga ko firee nii gën a jub bu ko defee yooyu yëpp ay conseil la ndax nag may itam lépp lu ma gis du noonu dinaa wax ni du nii seen mbokk Mouhamed Amine Sall moo leen ko doon defal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.